développement ci yeneen département yi comme Podor ak Dagana préfet yi fa nekk ñoom ñu ngi koy def pour xool centre d'examen yi donc nan la affaire yi di tëddee euh, di fàttali que euh, bi ñu defee tournée ba pare centre d'examen yi ñu dem gis nañ ni que daal euh, examen yi mu ngi jaar yoon huit heures fekk na épreuve yëpp commencé sauf ci quelque peut-être centre yoo xam ne ay retard trois minutes cinq minutes la ñu constaté mais ci de manière globale donc huit heures dal examen yëpp commencé nañ ci région Saint-Louis euh di wax également que absence yi xol nañ que gis nañ ni bëriwul du côté des élèves euh, xañ na amna quelques absences mais même amna ci centre yo xamanteni sax euh un taux de présence de 100% lañ am comme fi ñu nek ni muy euh, lycée Raw euh, li rafet lu yit mbokk na ci li nga xamanteni mom moy protocole sanitaire bi manam li nga xam mom le nit ñi euh, kilifa yi tëral pour que ñu aar askan wi ci li nga xam moom la ñuy wax jàngoroy coronavirus bi euh, am na ci ñun ñi sax bi ñu demee ci yenn centre yi lu ci ëpp centre yëpp dañuy contrôler thermoflash gis nañ ni gel am na fa gis nañ ni également dispositif de lavage des mains dina fa am euh, élèves yëpp dañuy takk seen masque comme ni mu waree mu am également distanciation physique parce que amul benn table boo xam di nga fa dem fekk fa ñaari élèves te amul également loo élèves yoo xamante ni jegeente nañ loo xamante ni manqué na un mètre donc loolu lu ñuy rafetlu la euh, di wax également que amna na même centre yoo xamante ni dañ fay wax day am na bërëb xam lañ fa jagleel su fekkee ñaanuñu ko yàlla am cas de covid 19 comme centre bi ma nekk muy lycée raw donc am na ci salle boo xam ne moom lañ prévoir pour loolu loolu nag vraiment bu amee donc ñëpp ñi nga ñoo mbir mi lu ñu jar a remercier lañ ñu jar a jaajëfal parce que ku ci nekk def nga ci li nga ci war a def pour que examen bi jaar yoon en tout cas loolu daal la ñuy la ñuy la ñuy wax di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di fàttali également que démb ju guddi jot nañ ay taw yu am solo di ci région Saint-Louis donc loolu waral na am na yenn centre d'examen yoo xamante ni am nañ fa ay taa taaw ndox comme lu demee nii donc CM ànd ak Guiabert nga xamante ni foofu ci cour bi gis nañ fa ndox yu taa wante loolu amul benn jafe-jafe bu mu indi ci épreuve yi jaar yoon donc élèves yi ñu ngi ci seeni salle di composé amul benn jafe-jafe boo xam ne indil na leen ko di fàttali sax ni que ci lu wees woon loolu amoon na ay taw yu ñu fi jotoon ba foofu amoon ay inondation ba sapeur yi ñu yebaloon leen fa ñu pomper foofu fépp ba démb amuloon benn ndox bu fa am mais ci guddi gi ci la taw bi ñëw donc mu am ay taw taw ndox mais yàlla dimbali nañu ba vraiment foofu daal examen yi en tout cas mu ngi jaar yoon amul benn jafe-jafe boo xamante ni signalé nañ